waaye itam nag ñi fare ci côté ku jegeet doon nañ ko xaar pour joxe ci seeni xalaat wala bokk ngir polémique parce que tamit yéen ñëpp xam ngeen ne euh, ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi depuis ñu accéder au pouvoir ba nëga ni maanaam opposition bi lenn lañ am ci lu ñu wax mooy ñi amuñu projet xamuñu sax lan mooy projet léegi nag yàlla dogal na ne projet bi taxaw na mu nekk loo xam ne ni yaakaar naa convaincre na ñi nga xam ne ñoo doon xeex pour li nga xam ne maanaam mooy projet bi donc ñooñu gën nañoo am satisfaction gën nañoo am kóolute ak yaakaar ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb muy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre bi di Ousmane Sonko ndax yaakaar naa ne projet bi dafa nekk loo xam ne dañ ci daj lu nekk pour mu taxaw donc bu ñu demee ba yegg ci jour bi nga xam ne wax nañu fi nga xam ne fi la ñu jëlee Sénégal ak fi ñu ko jëmee mu nekk loo xam ne yaakaar naa ne. ku leen gis ak seen engagement ak seen détermination ak seen maanaam ngëm-ngëm bi nga xam ne wane nañ ko di nga xam ne ñii bu ñu la waxee projet bi maanaam daañ ci def lépp lu ñu man ba atteindre seen objectif foog naa ne ñi nga xam ne ñoo leen vetaloon keroog la 24 mars daañu gën a am mbégte ak contentement seen yaakaar daal dinay feddaliku aussi ndaxte parti bi di Pastef ñu ko gëm dañ koo gëm Euh, gémmin woo xam ne gëm na nit ñi war na war mën nañoo liggéey Sénégal donc ñii di wax tamit di contester gëm na nit ñi mën nañoo liggéey Sénégal mais liñ naan boobu xaj bi ci tali bi moom mënut a tere oto bi mu àgg fi mu jëm ñoom daal au lieu que ñu ne wuti ay débat d'idées ñi ngi taxaw di xaar passif génne dara ngir ñu mën cee wax parce que xamuñu lu ñu war a wax xamuñu aussi fu ñu ko war a waxee projet bi nag nekk loo xam ne dekkal na yaakaaru mbooleem kuy patriote gëm Sénégal te bëgg Sénégal avancé mu nekk loo xam ne daj nañ ci lu nekk nag pour mu taxaw donc bu taxawee tey yaakaar naa Sénégalais yëpp dañ ci gën a am mbégte ak contentement te itam jàppale leen te yaakaar leen te bañ a yàkkam ci aussi loolu c'est très important parce que tamit Olof Njaay day wax ne ku dul gis ku naan ko dawal te jàppoo ci bëgguloo dul mu te ku ne xam ne nit ñi dañuy soog a door ci nguur gi fekk fi nag réew moo xam ne nii comme ni ko Ousmane Sonko waxee woon la premier ministre ne dañ fee dañoo donn maanaam un pays maanaam réew moo xam ne dafa tas tasar réew moo xam ne dafa ràpp réew moo xam ne dafa yàqu yaxet donc bu kenn jàpp ne di ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam rek ñu defar Sénégal ci ñaari fan ñetti fan loolu Ousmane ko waxoon na ko depuis bu yàgg nee woon na 2021 ba 2024 dina metti mais bu soobee yàlla dinañ defar Sénégal ci kàttanu yàlla parce que engagement engagement baa ngi fi xam-xam baa ngi fi détermination baa ngi fi ngëm-ngëm bi aussi mi ngi fi donc lan moo des sénégalais yi nga xam ne ñoo leen jàppale ba ñu entamé li nga xam ne mooy projet bi ba yàlla def ñu song ko ba sóobu ci nii nañ leen may patienté te itam te xam ne àdduna dara munul xëy sotti ci Mali Foro yàlla sax bi muy sàkk àdduna daf ko sàkk ci lañ wax ne juróom benn fan te bu ko neexoon mu sàkk ko ci benn fan yàlla mën na lu ne mais du tax mu def lu ne te réew mi ku ne xam ne ne ñii dañ ko jot situation yoo xam ne vraiment seenu njàmbaar ak seen xam-xam moo waral tey lii feeñ ñii ngeen gis ko tey ñu xam ne Macky Sall dafa fooyo woon réew mi dafa yàq réew mi dafa saboté réew mi ngir bi muy dem parce que olof ñaa wax ne ku iñaane sam doono sa deewin ñaaw te Macky Sall iñaane ñi ko doon donn moo tax bi muy dem mu caxat-caxatee réew mi di signé ay contrat yoo xam ne musu ko nangu ci anguuram di yokk ay salaire di def yenn façon façon yoo xam ne da nga xam ne lii vraiment sabotage dëgg dëgg dëgg mooy lii gis ngeen fi fan yee coowal chiffres yi ku nekk di génn di wax ku nekk di génn di wax Ousmane Sonko li mu wax amul parce que nangam nangam day lii day laal lu nekk ñu wax ko mais finalement fan la mujj tëj nañ seen gémmi ñoom ñëpp leen seen i bam ba mu rooñu toog parce que li nga xam ne ñi nga xam ne ñooy waa FMI bi mooy deuxième fois ñuy confirmer li Ousmane ko wax ne Ousmane Sonko il a parfaitement raison li mu wax dëgg gu wér la maanaam ñii fi nekkoon dañ doon fowe alalu Sénégal li ma jaaxal mooy ba jusqu'à aujourd'hui tey jii nii amul kenn ci ñi Ousmane Sonko joxañ baaraamu tuuma ne dañ doon fowe économie Sénégal. muy Moustapha Ba muy Ali Ngouille muy Abdoulaye Daouda Diallo muy euh, muy Amadou Ba amul kenn ku génn def sorti ñemee démanti Ousmane Sonko mais Samba Sugum ngay yi tekkiwul dara nga xam ne xamuñu lan mooy chiffre ku leen joxoon machine calcul sax ne leen calculer ma ci lii ñu def ay faute waxuma laaj ñu naan dañuy jéem a jaay xam-xam ci chiffre di wax loo xam ne xamuñ ci dara man damay wax ne ñeme yàlla ak yàpp Sénégal yi mënta weesu ki nga xam ne moo tiim lépp gis lépp wax lépp taxaw nga démanti ko sans preuve loolu yabaate la ak reewande ak ñàkk xam sa bopp du ma leen tudd nag parce que jamono bi dañoo nekk jamonoy boycotté mais am na ku ñuy wax maanaam euh, Sonko bu Bambey Sonko Bambey jamono bii dafa mel ne ko xabtalu moom dafa dem ba jombatul taxaw di fenn Sénégal yi di ko weddi man nag damaa yaakaar ne genn ñàkk dignité gi ak genn ridicule gi ci sa kanamu nawle yi yaakaar naa daray àddina jëru ko politique jëru ko parce que nit ki bu fekkee ne da ngaa dem ba yow xam nga xel que ne yow ñi la toppee nii dañ lay moqué dañ lay kaañoo mais lay dégg parce que waxi dof ngay wax. waxi saret waxi ñàkk fayda xamoo nooy politique koo xam ne da ngaa dugg ci politique gën a dellu gannaaw koo xam ne da dugg ci politique au lieu que nga amay soppe mais contrairement ay noon nga am yow ñi nga jiite sax dem nañ ba xam ne yow da ngaa ridicule da nga ñàkk fayda da nga soof da nga wayde parce que doo wax xam-xam amoo débat d'idée man nag damaa jàpp ne yorub télé war la permettre chaque jour que jëfee bu Ousmane Sonko génnee def conférence de presse midi ne midi 3 dama def conférence de ku ne xam ne ne Sonko Sonko loolu mais yow war ngaa xam ne doo Sonko te Sonko du yow demal nga jàngi politique nga wuti débat di te xam ne Ousmane Sonko mii ngay jëm a tendance du sa nawle du sa morom ci benn côté dem nga bay solo ni muy solo di waxee ni muy waxee di ànd ak ay garde yoo xam ne di garde corps Ousmane Sonko di solo la ñuy solo taxut nga doon Ousmane Sonko Ousmane Sonko lii mu may lii mu am leen rek nga nga mën a def mu sedd ci mooy nga nang ko xam ne lu ko yàlla may la mais nag di jéem a jaay maanaam di def di def opposant radical bi ngay def nii foog ne Sénégal yi daal la ci topp. au contrairement Sénégal dañ ci ciy weddi dañ la ciy bañ te jëpp nañ la dina wax aussi coow li nga xam ne projet bi commencer na di ko jur lenn ci ay nit jafandu ci di manipuler ñu mën cee seppi benn mag boo xam ne dañuy wax ne ba ñuy wax ne mag mën naa ba cim réew genre mag yooyu taxul ñuy wax ku mel ne Thierno Alassane Sall nga xam ne dafa waroon doon benn référence boo xam ne Sénégal tey jii waroon naa mën a jël xam-xamam jox ko ñi nga xam ne peut-être moo leen ëpp expérience parce que yàgg na nit ku yàgg la mais tey au contraire mu jël xam boobu mais day jéem a manipuler maa ngi dégg mu naan vision 2050 bi ça veut dire que Ousmane Sonko ak Diomaye dañoo wax ne Sénégalais yi nañ toog patienté maanaam ba ñu àgg ci mille cinquante te ku ne xam ne ne moom loolu mu wax manipulation la ci mais moo gën a comprendre li Ousmane ko wax xam na ko bu baax mais manipuler moo tax mu bëgg a ñàkkuloo yaakaar lenn ci sénégal yi nga xam ne seen xel xootul peut-être mu ne xaaral peut su ma waxee lii dinaa mën a jéem a euh, dinaa mën a jéem a Euh, danaa mën a tas lenn ci yaakaaru ay sénégalais ci ñii parce que su ma nee leen ñii kat dañ leen wax ngeen toog xaar ba deux mille cinquante pour projet bi man a soog a pare te ku ne xam ne loolu c'est faux dara du ci dëgg Ousmane Sonko daf ko bañ ba joxe ci ay preuve yu leer yu clair net nee na leen dafa mel comme si que ne tey Sénégal dafa songu benn tabax boo xam ne tey exemple dix étages la mais incha allah chaque fin du mois wala chaque un an daañu fexe ba. benn étage wala ñaari étage pare ñu daal di dëkk ci yooya songu yeneen ba rek ñuy àgg 2050 mi ngi tàmbalee ci seen mandat bi nga xam ne ñu ngi ko jël ci le 24 mars 2024 bii ba 2029 dina ci am lu bari loo xam dañ ko réagi euh, dañ ko réaliser moo xam ci économie moo xam ci li nga xam ne maanaam mooy lépp loo xam ne daal développement la pour Sénégal mën a bokk ci dëkk yi gën a miir ci Afrique ñoom loolu mooy seen yéene te loolu mooy seen jubluwaay te ñu ngi ci dañuy wax ne nag nit ki bu la diggee bu la joxee ndékki bu la diggee añ nga war koo gëm kon donc Sénégalais yi damay wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm ñii bu leen déglu Samba Sougou nga yi nga xam ne ay politiciens yu perte lañ xamuñu dara mosuñoo gañe gox ba ñu dëkk yaakaar naa ne bu ñu taxawee ci télé di ŋàppeeku di wax ngir jéem a yàqal lenn ci askan wi foog naa ne seen bopp la ñuy nax mais mënuñoo nax benn sénégalais donc xam leen bu baax a baax ñi ngeen war a déglu ak ñi ngeen parce que am ñoo xam ne seen mission lenn kese la ci nguur gi mooy nan la ñu mën a def ba décourager le jeunesse bi nga xam ne tey ñoo xeex ba lii am tey parce que ku ne xam na ne Ousmane Sonko ak Diomaye lu ñu mën a am rek c'est grâce à jeunesse Sénégal bi nga xam ne joxe nañ seen lépp pour lii am joxe nañ seen bakkan joxe nañ seen cër joxe nañ seen lépp daj nañ lu nekk pour jëlee fi Macky Sall tey bu ngeen demee koon tey ba gisaan ne yéen ñi ngeen daan àndal lenn ci ñoom ñoo beru ne dañoo bëgg a jëliwaat Macky Sall ngir mu ñëw jàkkaarloo ak régime bi fi nekk ngir xeexal leen pour nangu assemblée nationale bi jox ko opposition bi nga xam ne lan moo nekk seen i xel ay motion de censure lan moo nekk seen i xel mërmel gouvernement bi fi nekk pour lan tardeel Sénégal pour lan ñii duñu mën a def résultat parce que Sénégal ñoom politiciens yu perte yi xam nañ ne bis bu ñu mayee ñii battement daañu defar Sénégal te ñii bu ñu defaree Sénégal ñoom seen carrière politique jeex na takk duutuñ tekkee dara ci Sénégal moo tax nag ñu ne nañ wax lu ñu man pour pour yàqal pour nañ wax lu ñu man yàqal leen nañ wax lu ñu man pour décourager loo lenn ci sénégal yi nga xam ne peut-être boo nee salaamaaleykum maaleykum salaam convaincre leen mais ñi nga xam ne gëm nañ projet bi te xam ko yaakaar naa këf yóbbu leen wala taxu leen a fay kon Thierno Alassane Sall jàpp naa ne li mu def du cëram non seulement mag mu toll ne moom war naa dépassé taxaw fii di wax loo xam ne dara du ca dëgg ndax kilifa dangay doon kilifa buy neex ak buy metti yépp mag mu toll ne Thierno Alassane Sall nga xam ne daanaka mën na Sonko bàyyi mën na Diomaye bàyyi war a bokk ci ñuy fexe influencer sénégal yi ngir ñu gëm ni ñuy jàppale leen ne defatu ko taxaw fi naan day wet day yàq seen wax di déformer seen i wax loolu mag mu am fayda du ko def mag mu am fulla du ko def mag mu tekki dara aussi du ko def parce que Sénégal ma sàmba moomu ko ma dem moomu ko ñépp a ko bokk ñépp a ko bokk Sénégal bu baaxee ñépp la baaxal du question que ne Pastef la baaxal wala keneen la baaxal Sénégal bu baaxee ñépp la baaxal donc gis naa aussi tamit ñi nga xam ne lenn ci li nga xam mooy la presse Sénégal boycott bi nga xam ne boycotté nañ ko gouvernement bi nga xam ne seen lu baax ñoom dañ ci maandu bis bu yàlla sax ñu gis acte bu noogul boo xam ne état bi def na ko la preuve lu mel ne lay xew Bakel tey nga xam ne benn balaa la bu fa wàcc ah, nga xam ne loolu ça n'a rien à voir ak loo xam ne nii maanaam euh, ci ci coobare état la wala boog euh, loo xam ne maanaam daal ñàkk as loolu day am sax ci réew yi gën a def développé ci àdduna bi barki dem gis gis nañ ko Dubaï gis nañ ko barki démb Brésil loolu balaa la boo xam ne yàlla moo ko wàccee ngeen gis état bi yëkkati subvention bu toll ci huit milliards. teg ko ci kaw taabal ñi ngir jàppalee leen ko daanaka lay lenn lenn ci ay ñoo ci wax mais journaliste yi waxuñ ci xam la la ñuy wax la buggaan wax état bi wala la euh, Yirim Seck wax gouvernement bi juste nag pour di def genre tappale yoo xam ne wala boog genre jaxase yoo xam ne fi ne bu ngeen seetloo état bi euh, presse lu bari ci presse bi Samba Sugu Ngay bu taxaw wax lu ñaaw gouvernement bi ñu def ko à la une juste pour di xool ban réaction la état bi amee pour gëmloo Sénégalais ñi gën a ñi ay dictature leen parce que bari na fi lenn loo xam ne ñenn ñoo xam ne dañoo wax ba wax lu ëpp procureur yi woolu leen ñu ñëw war a dég war leen déglu nan la presse bi def taxaw commencé jaxase commencé jaboli si nan gis ngeen lii def Macky Sall nekk woon nangam nangam parce que ñoom loolu mooy seen mission jamono bii parce que ñoom itam ñoo ñi gën a ñoom ñooy ñi gën a ñoo maanaam ñoom man daal damay dem ba yàgg ma ne lii est-ce que presse la parfois est-ce que lii presse la parce que tamit wax ju am fulla duñ ko une waxi saret waxi ñàkk fayda lañ di ko def à la pour di def benn genre influence boo xam ne nii bëgg nañoo jaxase lenn ci ay nit ak gouvernement bi fi nekk ku ne xam na ne dafa am loo xam ne yoon da ko tere division de fausses nouvelles yoon daf ko tere sosal nit barki demu Ndiaye la la fi ma jabal jaañ wax xëy euh, jékki-jékki bind ay wax xam ne son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye fële ci hôtel King Fahd Palace dafa amee bor bu toll ci quatre loolu yëpp forage dara du ci dëgg lan la si jublu yàq lan la si jublu saboté barki démb ñu dégg euh, Euh, Sonko bu Bambey taxaw fii Ousmane Diomaye li mu amee ci bor sax naa nga mënu ko fa da nga maanaam ñoom li ñuy wax wax joo xam ne amul c'est pas cohérent maanaam ñoom sax convaincre leen sax foofu da ngay xam ne ñii vraiment ay nit yu nul lañ vous êtes nul xamuñu nan la ñuy opposé gis nga opposant da ngay am débat di di wax lu am njariñ comme ne ko Ousmane Sonko doon defee ci nguuru Macky Sall daawul bàyyi ba Macky wax muy foraatu ci ay waxam ngir di ko jéem a jaxase déedéet day dem indi loo xam ne lu clair net la teg ko sur la table opposé wu dignement normalement loolu moo taxoon tey mu am lii mu am turam fi mu yegg mu yegg fa mais nekkul ne da doon sos ak di fen di wax la lu dëgg parce que lii ngeen nekk nii war ngeen a xam ne du jàll diabolisation manipulation di jël jeunesse bi di ko dóor ci kaw askan wi loolu ça ne passera pas war ngeen a xam ne du jàll ak jeunesse bi parce que ñii dañ leen gëm ba keroog ñuy gis Sénégal yi mature nañ mature goo xam ne topp ñu kenn ndax yow dañ la bëgg ci Mali képp ku nekk ci réew mi bu ñu la waree topp dañ lay topp bu ñu la a ba dañ lay bàyyi mais nag nekk fi di jaxase di sóob ak di def yoo xam ne gëmuñu ci dara loolu dafa war a jeex ci réew mi dafa war a jeex vraiment am na loo xam ne lu mën a ñàkk la te itam am na loo xam ne man damay wax ne ñoom ñu koy def war nañoo xoolaat seen bopp parce que am na loo xam ne bu ñu ko defee bu ñu jàpp ne ñoom Sénégal yi la ñuy yàqal mais seen bopp la ñuy yàqal parce que Sénégal yi léegi yeewu nañ façon yeewu goo xam ne képp kuy manipuler wala kuy sos wala kuy wax lu dëgg tey balaa def 24 heures Sénégal démanti la parce que dañoo war a xam ne jamono dafa dox jamono la sëñ Bay Jaxate waxoon ne jamono day wérengu ko ku toog kilo wérengu ko loo bañ bajet wérengu ko tey bu njëkk da gis ne benn presse moo fi nekkoon moo fi daan nekk ku ko neex mu àndal bu ko neexee mu ànd ak presse bu ko neexee mu ànd ak euh, pouvoir su ko neexee aussi mu ànd ak opposition bi mais tey presse bi ñoom seen jëm mbopp seen doolee dafa wàññeeku te il faut ñu xam ko réseaux sociaux yii mayuñ leen dara marquage à la bu ngeen gisee li tax Pastef lu bari ci presse yi mënuñ leen a bëgg parce que xam nañ ne influenceurs yi ñu gën a déglu Pastef la ñu bokk te lépp lu ñu wax ci ay diabolisation wala manipulation balaa def benn quatre ñu démanti ko moo tax tey jii nii parti Pastef bokk na ci parti yi presse yi maanaam yi presse bi gën a sonal gën leen jëpp gën leen bañ parce que da ngeen imaginer tey bu fekkoon ne réseaux sociaux yi demewul nii tey ngeen gis lii presse bind chaque jour ka jafee lu ci bari dara du ci dëgg lu dul jaxase yàq lañ jublu man lan mooy seen problème war ngaa fay impôt du ma fay impôt jar na lii loo xam ne boo dundee da nga ko fay boo dee da ko fay wala nga dem fay jar na lii jarul lii parce que seen crédibilité ngeen di ñàkk te chaque jour que defee Sénégal yi ne tekki wu leen dara parce que da ngeen di politique état bi lii lii muy def bu ngeen ko waxee dana fës bu ngeen ko dana fës parce que sénégalais yaa ngi fi yoo xam ne nii dëgg rek moo leen ñor ak itam wax dëgg te yàlla tax donc bu ngeen fi nekkee di jëm a boycotté ñii tamit defalee ko kenn seen bopp ngeen koy def loolu bàyyi ba ngeen xam ko xam ngeen ne ma jama jaañ dem na ba jumbalatu boppam ay fen Yérim Seck bëkk dem gis nga ko muy xatraayu naan état bi du mu leen may dara danaa leen topp yow bala ngay topp kenn da ngay xool sa bopp ba xam jubu wala juboo yow Yérim dangaa wax lu dul dëgg wax lu dëgg ba jamono bii yaa ngi boo xam ne nii waxal nit lu dul dëgg moo la ko yóbbee ana capitaine Touré barki dem ba la plainte nga dem si yoon ñu daan la six mois de prison six six mois avec sursis amande la cinq millions jeexamul ngay wéy di wax lu dul dëgg di sosoka fen barki dem Ndiaye lan nga wax fii ku toll ne premier ministre nga taxaw di ko offensé devant tous les sénégalais te xam nga loolu li ci yoon wax mais yabaate ak réewande ak ñàkk a jox respect ñii nga xam ne ñoo fi nekk la damay wax nag lenn ci sénégal yi dañoo jàpp ne ñii dañoo faible mais faible ñu de dafa am loo xam ne dafa am benn pouvoir boo xam ne amaguñ ko te dañ ko war a am bu ñu ko amee par na ci la lépp du leer ci la ñuy di xam ne lépp dëgg la li tax tey jii ñu xataraay ñun ñëpp siñ tàng assemblée bi parce que assemblée nationale c'est très important pour ñoom tey jii nii bés bu ñu amoon majorité su boobaa réew mi ñu leen neex la lañ ciy def lu leen neex mais nag sénégalais yi nga xam ne tey ñoo jël réew bi jox ko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa mel ne dañ ko jox fetal bu amul bal li nga xam ne mooy bali mooy assemblée nationale ni ñu ko yëkkati jox leen ko ngir ñu mën a doxal réew mi ci ni mu war a doxee tey jii dégg ngeen Ousmane Sonko bari démb rek sorti bi mu def am na lu ñu war a taxawal lu tudd haute cour de justice loolu am na lenn ci ay certains nit yoo xam ne loolu moo leen man a to loolu rek nga nga leen mën a daaneele ci nga leen mën a toroxale ku ci mel ne Macky Sall loolu lañ ko mën daane ne ak ministre yi mu àndaloon ngeen gis liñ def ci réew mi bakkan yu rot ci réew mi loolu xam ngeen ne du nul parce que am na ñoo xam ne seen bakkan tey mi ngi ci biir suuf tey jii lan lan moo ko waral xeex dëgg mais dëgg jooju bu ñu demee tey ba ñu yàlla def ñiy jot ci xam ngeen ne loolu mënut a nul seen waa disant loi si bi xam ngeen ne bu ñu amee masoro dafay jóg kon xam ngeen ne Sénégal dañoo war a xar seen tubéy ngir fexee jël assemblée nationale jox ko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir Sénégal mën a dox ak i tànkam dem yoonam mais gis ngeen assemblée yi fi jaaroon yépp xam ngeen du assemblée yi dara assemblée yoo xam ne waxi saret ak di boycotté ay gestion yoo xam ne yu amal njariñ Sénégal la loolu c'est pas du tout normal am réew warul doxee noonu te ñii mbii coog mbaaloo lañ fas yéene taxawee gis naa nag fan yii ñu ngi woote wàllu naan Macky Sall na ñëw jàppaleel ngir ñu mën a jàmmarloo ak ñii fi nekk ma a ñii lan mooy seen problème ñoom ñi taxawoon doon saaga Macky Sall di ko xas di ko ŋàññi di ko wax wax ju ñaaw ñoo wëlbatikuwaat ne Macky Sall kaay wàllu nu parce que ñun gëmul suñu bopp seen coalition bi gëmu leen seen bopp yow nga war a dem ci làmb ñu ne la làmb ji kat bientôt da nga war a bëri nga xool sa bopp xam ne yow mbër mu yooy nga nga ne nag wax dëgg yàlla man daal xam naa ne yooy mais damaa bëgg nit ku ñëw ku jàppale ma ci combat mën a am ndam gëmu leen seen bopp gëmu leen yéen nee ngeen yéen seen coalition yooyu nee ngeen ñoo tere nelaw passif wala boog ñoo tere nelaw ña ca pale ba mais lan moo te ngeen am gëm-gëmu demal seen bopp ci élection yi ñu baree bari tey au lieu que ñu jël seen yoonu bopp dañoo daw raaxaloo ci biir coalition yi parce que xam nañ ne mënuñoo am ñaari nit da ngay xool ku mel ne Waly Ba da ngay xool ku mel ne tey Sonko Bambey tey jii nii waxam ju metti ji boo ko ma soon dégg da naan kii mooy chef de l'opposition tey bi dem élection jotee dafa daw làqatu ci benn coalition nekk fa xaw ma dixième xaw ma vingt troisième place xam nga ni kii gëmul boppam xam nga nit ki dañuy wax ne nit ku nekk la ngay wuyoo da koo war a nduru ja ngarmi gi ngay woote ak njàmbar gi ngay woote dëgg la dangaa waroon dem nga samp sa ndënd yow kese nga xool su boobaa ban prix nga am ci kanamu sénégalais yi loolu mooy tax sénégalais yi xam yaay kan mais toog sa kanamu télé di set di wax waxi dof waxi saret yoo xam ne sa jour da a ñàkk fayda ci kanamu sénégalais yi loolu yaakaar naa ne amul benn njariñ dinaa wax ci lu ñeel aussi jëmm ji di jéggi jóob bi nga xam ne gis ngeen moom itam semaine bii ñu génn presque moo doon def bës ci Sénégal ci mbirum loolu ñuy wax reddition des comptes wala boog leeral loo xam ne ci alalu askan ko dénkoon la mu comp tës lëf jaawale poosama poosu askan wi ngeen gis laataa ñu koy woo moom jéggi jub ubbi na rajo yi fu nekk mu taxaw fa di wax lu mu xam wax na ko mel na kuy menacé sax justice Sénégal mel na kuy menacé Ousmane Sonko ak Diomaye fan la mujj ay la yéwén maa sàcc ay la yéwén dafa sàcc dafa nangoo génne xaalis bi xam moo ko sàccoon 28 millions la mujj la mujjee wér teg ci ko tamit fan la waxoon du ma fay parce que man nangam nangam du ma def lii du ma def laa fan la mujj weeri xaalis bi parce que xam na ne justice bi fi nekk. justice bu indépendante la du ñu jàpp kenn ci Malick Foro du ñu tooñ kenn te defoo dara parce que justice la boo xam dafa tëddee njaaxaanaay képp ku ñu woo ba nga ñëw sa parce que ne da ngaa def boo ñëwee ban tey tegal la say dossier yow yaay avoué sa bopp jéggi Diop da doon jaay làmmiñ wu rëy yaakaar nañu dañ ko jàpp ci ay naxan ci ay ci ay maanaam yaama neex mais bi ñëwee bañ tegal koy dossier dafa xam xel que ne moom xam na ne jàpp nañ ko ci tas sàcc la mu nangoo weri 28 millions sur la table mais nag dinaa fay mais sàcc ma loolu xel da koo mën a nangu danaa fay li ñu may jiiñ mais sàccuma ko wax bu feebaree nopp kii lu ñoo war a wér te gis nga nag reddition des comptes rek war naa tax sénégalais yépp dem jël assemblée nationale bi teg ci loxo ñii parce que assemblée bi c'est très important pour gouvernement bi sénégalais dañu xam ne élection yi ñu jën muy élection présidentielle naam am na solo parce que jël nañ li gënoon jafe mooy nangu nguur gi ci loxo Macky Sall mi fi nekkoon parce que yéen yàq jox ko ñii nga xam ne tey dañoo taxaw tem pour defar réew mi mais dafa am lu des mooy tànk yi nga xam ne moo war a doxal réew mi muy assemblée nationale na Sénégalais yépp xam ne lu ñu defoon ci élection présidentielle dañ ko war a yokk a 1000 pour cent pour jox ñi majorité euh, boo xam ne dina leen permettre lépp lu ñu bëgg def ñu mën koo def Sénégal mën a dem ci kanam xam ngeen ñoom bi ñu fi nekk yor majorité ñaata yoon la ñuy wax ne dañ taxaw haute cour de justice dañoo lànk ba tëdd ci naajo parce da xool ay ministre yoo xam ne tey bërki démb ak démb ay walaakaana la woon tey ñu nekk ay milti multimilliardaire fan lañ ko jëlee fan lañ jëlee xaalis boobu fan lañ jëlee xaalis boobu lu dul sàcc xaalis Sénégal koo fal ñaari weer ñett koo xam ne da doon ci ay barak tey nga gis ko bërki démb njaay ñaari weer ñett nga gis tabax R plus 4 R plus 10 fan lañ jëlee immeuble yi da ngay xool li ne ci littoral bi nga dem Mbourkat ay nit yu tekkiwul dara yoo xam ne ay yambar lañu di ko moom fan lañ jëlee xaalis yow koo xam ne sa bàyyi bàyyil la alal yuro kër gu baax yuro benn société wala entreprise boo xam ne mën na laa permettre ngay tabax R plus 4 ngay tabax eh, eh, R plus 7 ak fan ngeen jëlee xaalis bi loolu nag li ko mën a saafara leen kese nag mooy ñu jox ñii li nga xam ne mooy ensemble bi ngir ñu mën a am majorité boo xam ne nii bu confortable lay doon képp ku ñu war a topp ñu topp la tam yomb lool ñoom Macky Sall mii ñuy wax nii yéen a ngi dégg fan yëpp muy xataraayu ne day ñëw ci réew mi mais Macky Sall ku ko waxoon ne ko boo tegee sa tànk aéroport Diass wala aéroport Léopold Sédar Senghor boo ñëwee ñu nangu ngu jumaa jox la ko du tax mu teg mu tànkam fii ndax Macky xam na bu baax li koy xaar ci réew mi dufut dina jàpp ko barki démoo Njaay ngeen gis seen ndaw soo xam ne fële la ko euh, kar ca aéroport Casablanca ndax suñu wax Aïssa Camara xamal ko ne déréti Sénégalais yi nga naan yi nga tuur na la wóor na la topp ba keroog ngay dee du la jig bu la jigee ma xam ne mbën nga na leen wóor ne ay millions ngi millions ngi Aïssa ñoo ne ci réew mi Macky Sall bu wàccam ci réew mi ñi mu rey seeni doom rey seen i jarbaat rey seen i euh, euh, sët ak seen i nangam ñëpp nga taxaw di ko xaar Macky moo gën a xam ne avertissement bi ko ay Aïcha Camara jox keroog bu ñëwee fii ci réew mi man waxuma la Sonko waxuma la Diomaye waxuma la justice Sénégal def liggéeyam mais Sénégal dañ ko saafaral seen bopp Macky moo la gën a xam ne géntam yi gën a xóot ñëw Sénégal bokku ci géntam yi gën a xóot ñëw Sénégal bokku ci wala boog bu ñëwee ngeen war a xam ne kii ndayam liggéeylu ko dara barke alxuraan ndax Macky Sall Sénégal yi mere nañ ko mere woo xam ne xam ngeen ne koo tesal ci extérieur yaa ngi dégg di saaga ndeyam di ko wax wax ju bon bis bu ñëwee Sénégal gii nga xam ne dana xam ne lépp dëgg la ndax Macky merum Sénégal la yóbbee keroog xam na boppam ndax keroog bi nga xamee ne def na passation de service keroog bi muy génn euh, palais daanaka bu ku traversé mu ray la directement aéroport dem génn daw génn Sénégal que xam na ne Sénégalais yii mere nañ ko te nag mënut a yombe loolu te ñàkk fayda ak Macky Sall ak ñàkk a na ma ko waaye de mënut a weesu yow nga jóge ci réew mi même pas six mois nga wax waxi dellusiwaat. naan ay waxi assemblée nationale yow Sénégal dañ def ci élection yi xanaa gisoo ko Sénégal dañ laa xamal dañoo suur ci yow ak loo àndal nga ne yooyaay nag loolu yépp sama yoon nekku ci dinaa ñëwaat Sénégal dagaan leen seen li nga xam moom baat mooy baatu askan wi yow Macky li nga def ci réew mi suñ xaalis bi nga caxat caxate yàqu ko réew mi nga caxat caxate yàqu ko di def lu la neex ndax saboté tey jii gis ngeen Sénégal yu baree bare bu ñuy ŋàññi ñii fi nekk lañ leen di ŋàññee gis ngeen dëkk bi ni dëkk bi dafa dëgër kenn mun a am dara ñu bari nag bëgg a jël toor boobu teg ko ci kaw ñii nga xam ne ñoo fi nekk tey alors que ñii ay victime lañ comme yéen parce que Macky Sall bi fi nekkoon tey dafa jël Sénégal tey Sénégal bu doon daba Macky dafa lekk ba suur au lieu mu defar ndab li ba mu jekk ngir ki ko war a wut bu ñëwee lekk mais Macky dafa jël ndab la mu def ca lam cee dafa pare jaxase ngir sabotage maanaam du ma lekk ndab li keneen du ci lekk xoola yëfu baadul ak Macky li ko Sénégal def Macky Sénégal fal na ko lu nekk nekk na fi ministre bu nekk Macky Sall doon na ko fi Macky Sall DG bu nekk Macky Sall doon na ko fi war naa fayee Sénégal dem bay dem di caxat caxate Sénégal di ko fawee nii ngir toroxal Sénégalais yi ngir yéene fi nekk bu ñëwee tey Sénégalais yi bàyyi leen même pas euh, six ñu baree bari ñu xamul tey pièce boobu daan nañ ci pièce bu Macky Sall ñii fi nekk dañoo tële dañoo impuissance mënuñoo yorum réew mënuñoo nangam mënuñoo nangam ñu bari daan nañ ci pièce boobu loolu la bëggoon bu demee même pas nga xam ne tey ci la ñu waroon dépense ci 2024 bii tey imaginel 605 milliards yoo xam ne tey waroon nañ ko mën a tàmbalee 2024 bi jëm ak moom maanaam lu mu bon bon bon bon bon 3 ans 4 ans day am dëkk bi kon du mel ni mel mais ñu ne ko dandeex lekk mais loolu dafa war a niil loolu warul niil tey Sénégal nguuta gi mu nekk nii yépp Macky Sall ko gàngooram ñoo ñu ko yóbbee ñii ku leen wax dara da leen di tooñ mais nag fas nañ yéene lépp lu Macky Sall yàqoon dana ko defaraat ci nii wala ci ne moom ñi ma parce que nag na leen wóor ne opération gox bi tàmbali na te incha allah bu ñu passé élection yi di ngeen xam ne mboolem lu waay sàccoon da nga ko dellusiwaat ci nii wala ci nee parce que Sénégal nag golo du bay baabun loolu dafa war a leer loolu moom lu war a leer la ak itam ñi nga xam ne maanaam ñooy euh, lenn ci ay opposants yi nga xam ne kenn xamul ñoom fan lañ fan lañ far fan lañu far ñoom daal bu teyee ñu wax lii bu subaa ñu wax lee di nëxas di nësaxal xelu sénégalais façon nësaxal boo xam ne nii da ngay xam ne ñii vraiment mënu leen jàppee lenn lenn lenn durul ay hypocrite parce que nit da ngay weex wala nga ñuul mais munoo bu tayee nga ma ni da xool di ku mel ne Bouba Ndour barki Demba Ndiaye da ngay ku mel ne Bouba Ndour xam nga Sénégal dafa bari genre doomu aadama yoo xam ne kenn xamul fan nga leen di classé kenn xamu ko ñooñu nag ñoo nekk nit yi nga xam ne ñoo gën a danger cim réew ñoo gën a danger cim dama damay wax ne Sénégal tey la neex ba ku nekk di joxe sa xalaat ci réew mi liberté d'expression bu ñu demee ba koy wax tay la xew mais Macky Sall xamutoon liberté d'expression Macky Sall jàppee na nit nu ne toroxalee na nit nu ne tey bu ngeen demee ba taxaw naan ñi ñang ñang ñang patat yi liberté d'expression parce que ku neex nga wax xalaat ci réew mi kenn terewu ko kenn parce que ñii ci fair play la ñuy gouverner ci jàmm ak salaam ak justice boo xam ne day tëddee njaaxaanaay mais taxaw saaga saaga président saaga premier ministre naan liberté d'expression wala nga taxaw di leen sosal naan liberté d'expression ana seen éthique ak seen am na loo xam ne vraiment yaa ko war a bañ bañal sa bopp yaa ko war a bañ te xam ne am réew dafa dafa nekk loo xam ne nii kenn du ko saax-saaxee wala ngay nekk di dox ak ci yoo xam ne wóor na la wóor yàlla yow li ngay def nii yow gëmoo sax sa bopp gëmoo sax li ngay wax far yooyu nañ ko arrêté nañ ko bàyyi nañ ko arrêté nañ ko bàyyi dinaa wax aussi ci lu ñeel jëmm ji nga xam ne moom damay insister ci moom muy Madiambal Diagne Madiambal dafa war a yam ci kuddu ñu rox ko ci bari na tey journaliste wala chroniqueur yu am fit di attaquer gouvernement bi c'est grace à bi moom moo ko waral tey jii gis nañ ci ku mel ne ay Badara Gajaga gis nañ ci ku mel ne ay Yirim Seck ak yeneen i xaw may journaliste yi xamu lu ñu doon taxaw di wax lu leen neex di jëmee ci gouvernement bi ku xam na ne loolu du dëgg te du yoon loolu dañ ko war a arrêter le plus rapidement possible parce que taxaw ci télé wax lu la neex président wala wax lu la neex premier ministre ñuy wax nga naan liberté d'expression dafa war loolu yépp nag. journaliste yu mag yii fi ne classe yu Madiambal Diagne gii nga xam ne journal bii di Le Quotidien chaque jour que jafee mu bind wax loo xam ne dara du ci dëgg gis ngeen tey bi nga xamee ne Fonds monétaire international waxati nañ ci lu ñeel mbirum chiffres yi Ousmane Sonko waxoon dëggal waxi Ousmane Sonko ji moom nee na encore une fois Ousmane Sonko ba tey FMI dañ ko wedde nga xam ne moom daa dem ba àgg ci day gis dëgg bu leer nañ mu ne lii ay fen la dem ba gis fen yu leer nañ mu ne lii dëgg la moom Madiambal noonu lay doxe kon genre nit yooyu nag dafa jot ñu arrêté leen ci li nga xam ne maanaam mooy réew mi parce que réew du doxee nii tey bari na ko yàpp ñii fi nekk ñoom ñoo tax te njiitum réew dañ ko war a wekk dañ ko war a jox cër dañ ko war a respecté kenn wurta jël kàddu gu teggu na ko teg ci kawam Macky Sall de amoon na fulla joo xam ne moom bis boo réewee wala nga yebaate ba wax ko dana ko saafaral boppam ci doole te doo ci man dara te kenn du wax kenn du wax tey nag la réew mi neex képp ku état ku képp ku ku ñu jàpp nga taxaw ne voilà gis ngeen acharnement yi am ñii dañoo ñëw di def affaire ñu euh, euh, turadi maanaam da ngay xam ne vraiment Sénégal dafa bëri ñoo wax ne bu ñu sañoon réew mi sax tàkk faf ñëpp bokk ci yam parce que bëgguñu Sénégal yow ay ndaw yu taxaw am engagement bu toll ni bëgg defar Sénégal mu jaral leen lu nekk fan lañu mas a gis président boo xam la may fayeeku sax par weer mëtul sax daanaka salaire député daanaka. premier ministre bi ngeen gis li muy daj ak ministre yi nga xam ñoom la àndal amuñu dimanche amuñu euh, lundi chaque jour que jëkk ñu ngi sur la terrain ñi nga askan wi di liggéeyal Sénégal te tax ngeen taxaw bëgg leen fakkasal ne duñ ci demee te képp ku ci génne ay ñaawteef wala scandale yi fa Macky Sall def ngeen waxul dëgg te ñi koy wax seen yoon nekku ci loolu mooy lan barki demoo Ndiaye ngeen gis El Malick Ndiaye li mu wax ci Dakar Dem Dikk ngeen gis scandale fa am. des emplois fictifs yoo xam ne ay presque 3000 personnes yoo xam ne nii ña ngay fayee ko weer te kenn gisu leen fi muy coûté Sénégal presque 3 milliards ah loolu pour lan la ngeen gis e-, scandale yi xew aéroport ngeen ngeen dem euh, mu tuddati port autonome bu Dakar la fa xew da ngay xam ne ñii dañ doon yàq Sénégal ci façon boo xam ne maa tayisme boo xam ne ak ñàkk yéene Sénégal jàmm goo xam ne maara day taal yi bis bu yàlla sax ngeen gis loo xam ne da ngeen naan Macky Sall moom. am réew la yoroon wala maanaam moom ab maanaam euh, maanaam ak royauté euh, euh, la doon woote maanaam ab buur la woon daal parce que moom xam naa dafa jàppoon ne bu demee ci réew bu paree kenn amatul droit wax wala kenn topp ko xam nga li nga xam ne mag ku soxor la ta bon rek mooy xoolal ak mu jëm xoolal ak mu jëm yu mu yu mu doon signé yoo xam da koy wóor ne moom pendant des années nit ñi ñu ko doon réclamé am na ñu ko doon réclamé mu lànk muy lenn ci ay salaire yoo xam ne waroon na ko yokk dafa lànkoon bi mu demee boor def daf ko yokk ay bourse ay lu jëm ci wàllum paj meeg euh, njàng meeg njàngale lu ci nekk Macky caxa caxate dem yoonam di fal ay nit yoo xam ne di jox nit ay privilèges yoo xam ne naan ministres yi dañuy wëy di fayeeku euh, jusqu'à la ba kañ di fayeeku loo xam ne un million ba deux million ci réew mu mel ne Sénégal gi nga xam ne gis ngeen li ñu wax ci chiffres yi xaalis bu dem yoonam kenn xamul fan la jaar Macky Sall boobu moo war a am audace ak fit ñëwaat ne day laaj assemblée nationale bi pour lan wala Sénégal ñoom ay mala lañ. te man yëpp Sénégal tey da ngay man li ma gën a yéem nag da ngay xool seen intercoalition yi tey ku la waxoon ne la PDS dina mas a dem ba rejoindre APR doo ko mas a gëm ku la ko waxoon doo ko mas a gëm ñoom ñi nga xam ne suñu élection yi xaw tuuti konoon rek Sénégal du dem élection xaw tuuti konoon te loolu PDS gii ñoo ko naroon waral ngeen gis Thierno Alassane Sall rôle bi mu ci dox fu ne dem na fa fu ne taxaw na fa wax ngir empêcher élection yi ba du am conseil constitutionnel fu ne dem na fa di jaxasee ko jéemante li ñuy wax dara du ci dëgg Karim Wade tey bu demee ba nekk mburoog sow ka Macky nga xam ne yow ginnaaw yàlla kii moo yàq sa carrière politique Karim Wade moo la exilé génn la réew mi tey yaa man a dem ba mën a jaxasoo ak Macky Sall ne da ngeen def intercoalition ngir laaj Sénégal askan wi mais Sénégal yi nag ñooy décidé xanaa Sénégal lu ñu ñàkk bopp ñàkk bopp nag yéen bu ngeen dee ànd si ànd kenn terewul mais Sénégal yi kenn ku ci nekk ku digne te am personnalité di nga xam ne seen caaxaan yooyu ñoom nekkuñ ci parce que comme yéen yéen a mën a wàcc ba ñëpp xam da wàcc ngeen tiim seen wàcc di ko lekkaat xanaa Sénégal yi ñàkkuñ fayda ba leen di lekkale seen wàcc la ngeen wàcc woon Sénégal du ñu leen ko lekkale bu leen neexee ngeen àndoo yéen ñëpp mais Sénégal yi nga xam ne ñoo yor carte yi ñooy décidé décision finale bi ñoo ko yore ñoom way nañ way gu toll ne seen tappale yooyu ak seen caaxaan yooyu ak seen complot yooyu ngeen def Sénégal yi nekkuñ ci kenn du leen votel bépp Sénégalais bu am daray patriotisme bépp Sénégalais bu bëgg dara dara ci boppam xalaatu leen votel parce que ay nit ngeen yoo xam ne ay comploteur ngeen ay workat ngeen parce que da ngeen trahir le peuple Sénégal ndax trahir peuple Sénégal mënul weesu Sénégalais yi ngeen ànd Sénégalais yi xeex ba am li ngeen bëgg tey yéene taxawaat fii rek ngaaññi Sénégalais yi loolu nan ko nan lañ ko a jàngatee nan nan nan lañ ko mën a jàngatee am na ci lenn ci ay gens gens yoo xam man damaa jàpp ne ñoom nag wax dëgg yàlla loolu ñuy wax liggéeyam ne dañ ko amul tey bu ngeen gisee ku mel ne euh, nu mu tuddati euh, Abdou Karim Gueye xurum xaak ngeen gis jamono bi moom itam man xaw ma dafay bëgg a dof xaw ma la boo koy bëgg dal ngeen gis ku mel ne euh, Ngóor si Diouf Assane Diouf ñi woo seen bopp ay activiste ñoom ñooñu tey ñoo taxaw naan dañuy woo sénégalais yi ci ñu contre bi te ñoom ñoo fi nekkoon bërki démb ne sénégalais yi kaay leen ngeen jëlee fi Macky Sall kaay leen ngeen rayante ak Macky Sall Assane Diouf tey ku Assane Diouf moomu tey ku tàmmat saaga Macky Sall tey c'est grâce à moom. moom moo njëkk a taxaw de ci àdduna bi di saaga Macky Sall Macky Sall ko Europe ñëw toroxal ko indi ko fii xañ ko jabar Macky doomam Assane Diouf moomu laa dégg démb mu ne day ñaan njëkk Macky Sall mu ñëwaat ci réew mi ngir jàppale leen parce que soxla nañ ko fi mais quel ban ban ñun ban réew la ñu nekk ak ban ñun yan façon doomu arme ñoo fi nekk yow nit koo xam ne tey day bële suba mu wert moo tax ma leen di wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm passif ak projet bii di passif bu leen kenn découragé loo. bu leen kenn wax loo xam ne yàq ak jaxase dong la ci jublu Sénégal billaahi dana baax ndax bu ngeen xoolee ñii fi ñu jaar ak fi ñu yegg si ngeen xam ne yàlla dafa pare pour defar réew mi ndax yàlla buy defar day mel ko yàq Sénégal yu bari dama nañ ba découragé ndax lu ne xew na fi tas nañ fi parti passif te nañ fi leader yi lu ne xew na fi Sénégalais yi di xeex ba yàlla def ñu atteindre seeni objectif képp ku génnaat nag ne da ngay taxaw nee di xas ak a ŋàññi Ousmane ko wala projet bi jàppal ne defoo kenn sa bopp nga koy def parce que naafiq moom am na fu ne am na ñoo xam ne tey ñoom ak yonente bi ñoo doon ànd sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yonente bi di ko xareel di ko defal lu nekk te teewul ay naafiq woon loolu nag ba àdduna tukki du fi jóg te gëm naa ne yeneen naafiq danañ génnaat yoo xam ne ñu ngi ci biir actuellement ni danañ génnaat kon yéen ñi nga xam ne yéen a gëm projet bi te yàlla rek tax gëm leen ko te comme ni ko Ousmane ko waxee woon démb fal nañ fi ay nit ay directeur ay euh, ay ay ay ay nu di charte mission lu nekk mais kenn mirul beneen bi ci topp dinaa jeexalee ci lu ñeel mbirum levée de fonds yi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi ciy woo tous les sénégalais nga xam ne sénégalais bu nekk ñu ngi lay laaj sa participation benn mille francs ci boo ko mënee benn 1000 ci boo ko parce que ñoom passif dañoo woote loolu ñuy wax jub jubal jubanti tey jii bu leen neexoon alalu Sénégal nii lañ ko tiime nii bu leen neexoon ñu tibb ca la leen neex. dem financer seen campagne mais dañoo jaay Sénégalais loo xam ne xalaatuñ ëllëg ñuy wor Sénégalais yi moo tax ñu ne leen dañoo bëgg lépp lu ñuy def mu doon lu leer nañ parce que jub jubal jubanti la ñu woote mu nekk loo xam ne c'est pas obligation képp koo xam ne man nga cent francs sax nga dugal parce que Sénégal bu baaxee ñun ñëpp la baaxal te itam gis ngeen fi gouvernement yi nguur yi fi nekkoon bu buñ daan campagne ay millions lañ daan génne ay millions de millions des millions di ko séddale di ko distribuer ci ci at ci ci réew mi ngir jënd leen ci ay Sénégal Ousmane Sonko ko na ko bu yàgg Ousmane Sonko newoon na leen vingt cinq mille ak mille yii ñu leen di jox ngeen koy lekk yéene doon les premières victimes yéen ñi koy jël tey lam waxoon ñëw na Sénégal ni mu méttee nii wax dëgg yàlla lan moo ko waral ay carte d'identité yoo xam dañu ko daan jënd daawoo votel nit parce que ko gëm mais da ko daan votel parce mille francs yi mu lay Ousmane Sonko ne man awma xaalis bi may jox kenn mais fas naa yéene servir leen ba ëllëg lépp lu waaye bëgg ci réew mi mu boo bëggee xëy am xëy yomb la yaa ngi dégg lépp loo bëgg ci réew mi nga am ko parce que Sénégal yàlla jox nañu lépp bépp ressource buy développé am réew mi ngi ci réew mi mais ay gor yu set yoo xam ne man nañoo jiite te duñ luubal la ñu yàlla joxutoon te actuellement yàlla jox nañu ñii bu la neexoon duñ laaj kenn benn dërëm te kenn du leen laaj fan ngeen jël xaalis bi ngeen di financer seen campagne mais seenu jub ak seen jubal ak seen jubati gi ñu woote moo tax bëgguñoo am benn gàkk-gàkk ñuy sant Sénégal nag ci engagement bi nga xam ne am nañ ko ci li nga xam ne maanaam mooy levée de parce que gis nañ ne macha mi ngi dem mi ngi yéeg mu nekk loo xam ne ku nekkul patriote mënoo ko parce que defal si réew olof ñaay yonent bi saa dafa waxoon ne maanaam xubbul watani minal iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla te bëgg sa réew di defal sa réew dafa am solo xam nga Sénégal benn mag nga doon wax ne. bala ngaa laaj lan la lan la ma Sénégal defal yow laajal sa bopp lan nga defal Sénégal mais 1000 francs yi ngay def ci réew mi jàpp jàppe ko ay milliards jàpp ne bu Sénégal baaxee sax 1000 francs yooyu ñoo ko baaxal buñ ko xeeb mais buñ nga def ci nga xam ne Ousmane Sonko yoon wi mu jël du yoonu caaxaan yoonu liggéey la te Sénégal bu développé kenn ku nekk sa njariñ la ci ñun dégg ngeen yenn sàmba su ngay yi wax nag naan la xew Tuubaa ak ndox ma fa nekk ak waxuñ ceeg nag mais loolu waxi charrette la bu leen kenn déglu waxi diabolisation manipulation ñii dégg nañ ne dégg nañ fi gëmuñ sëriñ seeg dégg nañ fi dañuy xeex kilifa diine yeeg dégg nañ fi lu ne kon bu leen leen faale la waykat boo xoon rek boobu xaj bi ne ci tali bi mun mënta tee benn yoon oto bi àgg fi mu jëm mbott yi ne ci dégg bi di ŋaax mënuñu tere gaynde yi naan si gis ngeen Ousmane ko du yàgg ba mu tontu ma Samba nii ma Demba bu son excellence président Diomaye Faye aussi amul seen jot amul seen temps bàyyi leen ak yi te jamono yi dañ leen boycotté dafa mel ne Sénégal boo xoolee dafa mel ne sax opposition amatu fi dégg du leen kenn bi te pourtant ñi nga wax bay xottee parce que amuñuy nit dem nañ daal ci léegi dañuy jënd ay influenceurs pour ñu leen di waxal mais influenceurs yooyu doon Sénégal ñu daan partage mais léegi kenn déglootu leen kenn faaleetu leen opposition bi jamono bi ñi nga mel ni armée yoo xam ne si nga xam nga tey aw fen mënta sori dëgg rek kay sori te ñii fañ tàmbalee xool leen ko ba Ousmane Sonko di am benn député ñu koy mokkee di ko reetaan muy campagne di dox ak tànkam ñu koy reetaan mu dem assemblée nationale buy wax ñu koy reetaan wala ñu génn génn salle bi ñoom ñëpp. tey moom la yàlla teg mbir yi ci loxo muy chef de gouvernement ilimaan yi jëwri ni mooy buum mooy bumi kum neex ak mu naqari seen xol yu bon yéeg seen wax yàq yi ngeen def nii defoo leen ko kenn seen boobu ngeen ko def parce que yàlla dañuy wax ne bis bu tracé nga effa bis bu tracé nga effacé mu tracé waat nga effacé dalay effacé par sa ko tracé Ousmane koo bañ ko bénéfice néew ci Diomaye bañ ko bénéfice néew ci buñ defoon lu jar bañ leen sax ngeen waaw. waaye koo xam ne dafa dul bëgg réewam fu ne mu jaar fa ngeen toroxal leen lu ne yàlla na mun ñu torox tey jii xanaa ngeen war a nangu te bàyyi seen wax ji comme que Macky Sall moo mënutoon dara ci ñi waxuma la ak yéen seen wax ji seen waxi picc yi nekk leen ay nit revient sur lu yàlla dogal ab jàmm mënu ci dara boo nangoo la yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex mais soo ko bañee ci sonn ak jaaxle ak soof ak ridicule ñàkk fayda waye de ki ngay dëkk xool de politiciens yi ku la ci ci gën bari wax la gën a xoolal politiciens yi rek ku la ci gën a bari wax fi ne ñi muus ñëpp dañ ñëpp parti parti la noppi parce que Ousmane Sonko mooy Sénégal saa boo ko laalee Sénégal yëngu kon booy wax waxal politiquement kenn tëriwu la nga opposé mais ngeen bàyyi waxi yàq der waxi sos ak waxi jéem a découragé loolu lenn ci ay sénégalais loolu taxul Sénégal baax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ ko fexee defar mais ne ci gaal gi naan yàlla na gaal gi suux opposants yi bari la ñuy wax yàlla na gaal gi suux wallahi loolu ñuy wax bu ñu Sénégal du baax. jërë ngeen jëf kon dañuy yëkkati foofu jotaay bi di leen ñaanal jàmm bu baax a baax te di ko sàkku ci